Abdoulaye Diop jërëjëf euh, l'homme passe partout ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu ak euh, sant auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu RFM 94 point 0 encore ngeen ñëwaat seen journal des faits divers euh, xalaas ànd ci ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye baan maa ngi lay ziar. ah maa ngi lay ziar sama waa ji di la ziar bu baax a baax di ziar euh, ñëpp ñu nga xam ñi ngi déglu rek di leen ñaanal jàmm bu baax baax a di kontaan ñëpp ñi nga xam ñu ngi euh, ñi ngi déglu RFM di déglu xalaas di leen ñaanal jàmm ne yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci Sénégal yeeg africain yëpp di ko def ci doomu aadama yi yàlla na def jàmm ci réew mi yàlla médecin yi nga xam ni ñooy góorgóorlu ci feebar bii mu lëmbee àdduna bi yàlla na leen yàlla jàppale ay jàmbaar la nañ leen nit ñi ñaanal médecin yi donc mhm. waa kër docteur nañ leen ñaanal ay jàmbaar lañu mhm. ndaxte ko jaaxle fa nga jëm mhm. ñaan ñi takk der yi waa kër docteur kenn mun leen a tëdd bu guddi am loola daal nga daw wuti li kër docteur baan ñii ci réew mi kenn mun leen a fay. waaw ñi yor sécurité réew mi kenn mënu leen a fay. waaw ñii jàngalaate. waaw kenn mënu leen a fay jàngalekat yi enseignant ñii faj xale yi. waaw kenn mun ñii faj nit ñi. waaw kenn mun leen a fay ak ñi reetaanlu ñooñu moom. ñii reetaanlu nit ñi moom baan damaa foog ni ñooñu moom gouvernement. <laughs> wala maa mel ni <laughs> maa ngi lay ziar. baan baan lu rafet daal na rafet rek. rafetal naa xool naa loo xam ne mënoo koo teggi bàyyi li ma lu ma teg nga teggi ko Ndiaye maa ngi ziar. <laughs> dolli ci kilifa diine yi. ak am moom ñoo yor réew mi. moom kenn mënu leen fay ñoom it. ñoo ñooy réew mi. bàyyi leen ci jàmm waaw non ñiy reetalaan ñiy reetaanaa. reetaan waaw ñiy reetaan waaw waaw ñooñu d' naa ci ak yow. waaw d' naa ci ak bu baax a baax a baax. Ah, xam nga xol bu féex. tey lu xew tey. mooy non déet wax dëgg rek. maa <laughs> wax dëgg rek surtout jàngalekat yi aussi xam nga li tax métier jàngale metti fii ci senegal mooy lañuy def bàyyiwu leen ñu def leneen te la ñu nekk mënu leen a yor. dëgg la moo tax mu compliqué. Mhm. cest à enseignement yow enseignant bi jàngale day jël sa temps yépp. Mhm. pour nga xaj-xajal ci leneen day jafe. Mhm. te la ngay liggéey bu weer deewee mënu laa yor. dëgg la de. xam nga bu la neexee mën ngaa animé après wàcc fii dem ci soirée da gàllaay jóge ci soirée da gàllaay après daa di ñi wolof di wax kusum taatu mën a arrondir say fin du mois. mais jàngalekat bi huit heures. ba 16 heures jàpp 17 heures ma nga fa. bu duggee école mooy gën a sonn élèves yi fu tëdd nelaw. dañuy joxe ay. Mhm. coup de renforcement ay cours du soir ak yëpp mais mais à quel nañ leen ñaanal rek. dëgg ñu gën leen a xoolaat gën a jàppale. gis nga ñaxtu yu metti yi xultu yu metti bu jeex la loolu rek la xol bu gën bàyyi xel rek bu jeex la rek. am na tenue ak médecin yi gis ministre bu wàcc ci mbedd mi di manifester wala muy def euh, préavis de grève. amagul de wala plateforme revendicative. amagul de ah, jeex na amagul de. mi ngi noonu. baan nga ni euh, fu nu jëm nga ni baan. Euh, dafa am benn xale bu jigéen daal bu ñu seet si oh ah léegi lu mu doon yow. waaw euh, kon baat ñu seet ko feneen dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne daal dafa am lu ko dal. dafa am benn vidéo bu may gis. vidéo bi ñu ci loolu laa nekk nii. waaw après mu ñu ñu doog ko am nañ numéro waa ji euh, pour jël ko jël version tout de suite. avant ñu ah. koy joxe waaw maa ngi doog am numéro bi numéro bu baax. xam nga ban vidéo laay wax. ban ci mooy xale bi. xale bu jigéen bi ñu ne. waaw jëkkëru yaayam. waaw moo ko violé. Mm-hmm. ba ñu yóbbu ko hôpital Fann. Mm-hmm. am ay vidéo buy circuler. Mm-hmm. ñu gis ci mu mel ci du lépp lañ mun a ci rajo mais daal anam bu ñaaw. waaw ñu ne xale bi trois ans la am. video boobu laay wax. man vidéo boobu gëw ma gëw ko. Mm. gëw ma ni video boobu Sénégal la. man loolu nag man doy baan man la engagé. ku mu neex nag nga gëm leneen. waaye man dama nuyu baan vidéo boobu di circuler ñu naan cas boobu la di bëggoo méngaloo cas jàpp naa ni vidéo boobu ak cas boobu bokkul. jàpp naa ni vidéo boobu du du ci réew mi. man doy baan loolu nag man. mais par contre li am mooy. am na benn xale bu jigéen. loolu am na. bu jëkkëru yaayam violé. waaw ba gaañ ko. waaw ba ñu yóbbu ko hôpital Fann. waaw loolu dëgg la. loolu moom am na loolu moom am na. léegi nag ndax fee boobu ak. vidéo bii ñu ko booleel benn la. waaw loolu it ñoom ñoo mën a. ñoo mën a ñoo ko mën a. àttekat yi enquêteurs yi ñoo ko mën a leeral. yenn saa yi dafa am ay coow yi am. Mhm. nga gis benn nit mooy toog ci néegam. Mhm. jël benn vidéo fenn. Mhm. def ci audio soo jëlee audio bi sax soo dégg defee déglu audio bi. maanaam du wax lu leer ci audio bi. kii ñiy wax ci ni nit ñi moytu loolu. jël benn vidéo rek def ci ojo rek partage lii de fii la xewee pa defoon nañ ko ci temps yi kii amee ñu doon rayante fële boori Afrique du Sud de xoma fan. Mhm. ñu jël ay image yoo xam ne centre Afrique ga woon ca guerre ba. Mhm. publier ko nit ñoo ngi rey sénégalais yeeg ñoo ngi rey ñeeg ñi publier ko muy circuler ci dëkk bi loolu c'est dangereux nit ki sooy publier benn vidéo li nga ciy wax nala leer ni lii fii la ame kii doomu diw la nangam nanga wax ci lu leer naññ. waaye vidéo boo xam ne nit ñi dañ koo seetaan seetaanati ko seetaanati ko am na ay vidéo yoo xam ne depuis cinq ans la mi ngi circulé waat ci biir dëkk bi mu mel ni démb la. parce que li ma jaaxal mooy lu mel noonu. Mhm. bu eggee hôpital. Mhm. waa hôpital ci boppam ñooy saisir police. Mhm. wala gendarmerie. ñoo ciy topp donc lan moo tax. mu échappé leen ba mu jaar ci vidéo ba nit ñi di ko partagé jaaxal na ma. pour autant. Mhm. du ma ne du Sénégal du ma ne Sénégal. Mhm. nañ bàyyi ba ci kanam mais lu mën di am daal moom. Mhm. ci ni ñu ko waxee loolu am na am na benn xale bu trois ans boo xam ne. Euh, jëkkëru yaay moo yegg ci kawam. mu am ci jafe-jafe ñu yóbbu ko hôpital. waaw loolu am na moom. loolu am ko topp mais vidéo boobu gars yi def attendre njaay kii biir bi day daw. loolu mooy loolu mooy feebaram. waaye déet waay ban yow tamit. ah mais la feebaram la du fii nag. mais ah, feebaram mooy du wii la waxtu. ah waxtu feebaram la looloo ko dal feebar bu ko xeebal soxla non xeebal ma ko soxlaam waaye nag saa yi ban du lu nekk fu la neex. nga ko fa biir buy daw lan la feebar la ça c'est humain feebar la. coronavirus yaa ngi ñu ñu ngi koy kaas. ay paludisme ñu ngi koy kaas waaw bi jaare feebar la comme coronavirus la. mi ngi mel ni tànk yi métti sa bët yi métti loxo yi métti. ba da koy teg dama ne c'est humain. ba da koy teg waaw waaw déglul. am problème bëgg ngeen jàppale ma nah, ndax instant bii sonn naa trop. bii buy daw di métti laa amee ut la woon ut ba mars bi lay am huit mois mu sonal ma torop fu nekk faj nañ ko faj nañ ko ci garabu tubaab bi ko ci garabu olof yi mënuma fexe ba wér instant bi te dama doon jàng élève la ren ji sax jàngu ma dama def année blanche ndax bii bi ni muy dawee noonu xaw ma la may attaqué mën naa commencé bay jàngu attaqué ma moo tax ren dama toog ana Blanche jàngu ma sonn trop hôpital jaabante hôpital def na analyse trois fois def écho analyse li ñu génnee li ñu génne ñu mënuñoo benn feebar écho bi ñu ne ma da nga am kyste mais kyste amul benn problème lañ koy traité mais si noonu ñu may jox garab ay garab calmant mais garab tubaab bi su ma ko naanee tax sama biir bi sedd sama biir bi dafay gën a du metti ma ni ma wax ak sama yaay ni koy dem ci garabu olas ba xam comme que garab tubaab bi su ma ko naanee sama biir bi day metti léegi si noonu sama yaay sama tante bi ànd ak ma ci benn ñu takkal leen benn dem ci benn meer bi meer ko jox lu mu lekk ma koo faj yabal ñu feneen léegi ba mu dem ci meer boobu meer boobu ni waa waxaat la même chose ni dañ jox lu lekk avant maire yooyu am na ku ñu njëkk a wax dañ ko jox lu mu lekk maire boobu tamit daan ni mën na ma ni ma dama jox benn garab ni ma soo da nga koy naan si ngoon si nga naan ko après nga ñëw ma dindi ko léegi ma def noonu ba ma xëyee ma dem maire bi am lu mu génnee sama ni ma lii joxoon nga lekk avant loolu sama biir bi da daan daw di di daw di metti ma koy booleeg wàccu mais depuis mai bi bi ma dindilee loolu ma dañ la jox lekk ci laa gëj a wàccoo gëj ba ma ko mën na un mois un mois yu tegal ay ay fan mais boobu ba léegi gëj naa wàcc mais bii buy daw bi moom ma jaaxal trop day jàkkaat bi ko daw may jaabante ci dus ba suba ak ngoon guddi gi si ñëpp tëddee laa même chose damay dem ci douche ba presque du ma nelaw fajar gi laay doo ko am mën a tëdd tuuti nelaw ma sonn torop nag ñu koy faj fu faj ci garab olof yi ci garab tubaab bi mënuguma fexe ba wér te yàgg na torop biir bi daw pendant huit mois loolu yàgg na métti na daf ma jeexal tàkk te instant bi élève laa dama war a jàngi te sama biir bi su arrêté bi gëm naa mën na sama jàng mën na arrêté léegi nag ma bëggoon ngeen dimbali ma si ku ku ma mën a faj fajal ma sama biir bi ba mu wér ndax dama bëgg déposer candidat libre te mënaguma ko déposer ndax mënaguma jàng samay leçon instant bi su ma commencé bay jàng biir bi attaqué ma ma daal di arrêté dem ci douche ba ñëw jaabante su ko defee damay taayal teg tay du ma mën a jàng sonn trop ma bëggoon nag ngeen jàppale ma ci ku ma mën a faj ndax sama biir bi instant bi na ma damay jaabante kidus bi wima bibi di daw di meti di daw di metti waccu bi arrêté na mais bibi daw di metti moo ma sonal nii ci ko ma mën a fat ndax sonn naa trop dama bëgg a wér ba dem jàng xalaas léegi kii àdduna yëpp nga koy dégg ci ño xam du ñak ñu am luñ ci xalaat. ah en tout cas neena dem na hôpital ba sonu yobbu nañ ko ci mamani faju na da bay bëgg de daal mbir mi dal doy na waar. en tout cas ku xalaat ni mën nga koo dimbali rek 77 150 17 17 ngeen mën cee woote wala envoyé ci li nga xam ni xalaat ngeen ni bu ko kiiwee rek euh, problème am mën naa lijjanti ko. mën naa lijjanti Ndiaye. waaw te de lii moo nekkoon problème xëy na su ma nekkoon yàlla ab jullit du ko wax mais su ma su su ma nekkoon yàlla am na mhm. feebar yoo xam ne du ma ko teg jigéen. Mhm. naturellement dañu bëri kersa. Mhm. donc euh, am na yoo xam ne tey bu leen dalee ñaari pen la leen di def. Mhm. penub nu ma koy waxe ak penub nu may fajo mhm. xam nga bala ngay xam ne dañoo bëgg di dox ci suutura mhm. nga toog ak jigéen jula la ñeme ba mu wax la li muy dund li muy toogaale mais jamais nga xool leen xool ko ci ñoom njaay yow boo amoon yenn pouvoir yow ferber bi mën nga koo teg xale bu góor yow ci yow mi sax kay laa koy teg waaw wuyul kii li ma wax li mu wax kii ñoo niroo ne ndeysaan nee na moom dafa feebar problème mu. séeréer la am. moom dafa moom dafa am problème mu séeréer. waaw. Uh-huh. doy na waar. ku nekk ak ku nekk ak la la kii mais en tout cas ñiy déglu daal. suñ ci fekkee am euh, àdduna ngi noonu. Mm-hmm. kii li mu bëgg. waaw moom la kee ñàkk. Mm-hmm. kee ña la mu ñàkk. moom la kii bëgg. Mm-hmm. àdduna ngi noonu ngi noonu moo tax gis nga ab jaam li mu war a sant yàlla dafa bëgg. dëgg la de. ab jaam li mu war a sant yàlla dafa bëri. dëgg la léeg-léeg nga gis ko nekk ci tali bi yor otoom mbëkk moroomu otoom ñu taxaw di xuloo di saagante nes tuuti la ñuy daw ñoom ñaar ñëpp yam ci koo xam ne yàlla ci chaise roulante la ko teg. wallaahi wallaahi. xëccewul tali. xëccewul carburant. mbëkkantewul ba noppi ñëw di la wax ne la sa wërsëg may ma ci maak yow ñu dund. moo tax nit mu war sant yàlla. bari na leer laa la wax. Ndiaye léegi nga gis abaa mu mbëkkanteeg baan ci kii bi xam nga tamit xam nga tamit xam nga tamit jox nga exemple bu baax ba ñëpp kontaan <laughs> looy ci waxee ay dañu ëffal ban na dem njaay ak ñoo ngi gis benn jot nañ ay ay xibaar benn waay boo xam ne gis nga vidéo waa ji nga xam ne euh, ay gars yi dañ ko yóbbu géej door ko dóoru dóoru dóoru waa yaram yi moom yàqu na moom te maa ngi wax léegi kii ki ma doon waxal ni ko neleen parent parents mi ñu yóbbu ko hôpital sinon da ngeen ne xëy fekk mu dee ci kër gi ndax yaram wi fu amul fooy laal te a doonul doonul ay liquide. ñu ko doon door ak ñu ko doon dóoree. nee nañ am nañ benn artiste bu tudd Ibra Naajo. man xaw ma ko. Mhm. xaw Ibra Naajo. Ibra Naajo waaw. Mhm. amagul ci artiste yi Ibro Naajo. Ibro Ibro. Mhm. lu mu doon way kat théâtre kat Ibro Naajo. moo way ewaay Zamba gi gi ewaay Zamba. aywa mbaara ko kóor kóor kóor kóor kóor mbaara ko kóor góor góor moom moo ko way voilà moom nag waaye caalawul alawul ma yeggali wala voilà ah, léegi wóoruñun waaw de toute façon daal vidéo bi ñu gis ak waa ji nga xam ne moom lañ dóor ne ne dañ koo jiiñ sàcc xaw ma loolu ngeen di seen nopp yi dañ koo fekk mu koy dóor wala nit ñee ni moo ko dóor moom ci waa ji ci boppam mooy nettali mm. ki ñu dóor mooy nettali nii way waykat bi ak ay nit ñoo ko jàpp jële ko këram yóbbu ko géej dóor ko trois heures du matin ba six heures di matin ndax problème mu airport déglu ko teguñu ko fenn ndax papaam jële ko foofu waaw ne suñu àndandoo la papaam loolu tax sax mën na dañ kaa jël si kër gi ne papaam ñoom ñaar ay xarit lañ yóbbu ko loolu tax papam bàyyi ko mu dem jàpp yaramam bi dóor ko def ko nii ndax airport li xanaa nag boo taxoon sax si seen ñaan nit ki airport way ko mu may la airport ndax jarul lii jàpp doomu aadama dóor ko mais nañ xam ne yoon dëkk bi am na yoon ba pare nëkkal ko si géej gi jël seen téléphone caméra ko bul suñu bul suñu bul suñu bu jël kanam jël waaye garaawul na jël a seetaan Ibro Naajo artiste boppam tam dëkk Parcelles Assainies moom moo ko def unité 13 ak ay xaritam 6 personnes lañ 3 heures du matin nga jot yóbbu ko géej. 5 personnes waaw jàpp kanam bi góor ko daggati ko def ko def leen leen neex loxo bi dafa damm kenn xamul dammul ban loxo la si loxo bi dafa damm kenn xamul ba xam dammul jam ko ci bopp ba bàyyi nii ndax lan airport airport jar na léegi nga ne bam wan ko wan ko jam bu nekk wan ko jam bu nekk wan ko jam bi wan ko jam 3 heures du matin lañ fi ñëw waaw ay 3 heures du hmm. matin ah. mais 3 heures du matin lañu commencé dóor 3 heures bu 5 heures kay la waaw yóbbu ma géej bu ma jugee géej tam ñu jiit laata bu may ñëw moom ma dox bu baax sax hmm. billaahi su ma doxee rek damay daanu hmm. waaw 6 heures maa daal laay soog a seen kër bu ma fa demee ba ay 8 heures ma génnaat si biir ñu amaat problème dugaat si biir bu ma génnaatee nag laa dem ñibbi waaw ah, ñoom buñ la da seen kër waaw noonu ñoom laa àndal ba foofu ñoom ñoo mu di. ñoo ma ñoom. waaw te bi yëpp man maa ngi naan ñii ñu bëgg daal jaaxal moom parce que li ñuy wax nii man dara laa si xamoon ba pare effet bi jëlee ma kaw. ba bu ñu sant yàlla quoi. bu ñu xam naa nu mu demee sant yàlla. boobu si biir saal bi lañ nekk eh, si biir néegu naa yow. dañuy wax jékki-jékki ba si kanam. ku mu neex jékki-jékki dóor si lañ jëlee benn ànd bu nekkoon foofu noonu ñu sotti ma ànd bi voilà après ñu bàyyi ma géej lu la ma takkoon sama tànki yi dugal ma si biir géej gi may naan dox bi kay mu si naan kay bëri na tànn ma parkaat su ma taatu neen di caméra loolu daal waaw loolu daal lañ jot a def non fii bu ñu ñëwee dañoo ne ana xaadim boobu maa ngi doon waaj nelaw bi nga ana bi si laa génn jaala jàkkaarloog ñoom xam nga ubbi bunt bi génn moo génnee si biti ñu ne ay pot man leen ay pot yéen ñu ne nekk fii leen noonu dañ leen génn si biti si lañ génn si biti man leen yéen loolu ni wax nii da mooy yéen da ngeen mooy nax wala nu demee nii ñu dëggal effet bi mm-hmm. di dem di dem osan ba si kanam ñu ne dañ koy génn man leen wax lan laay génn seen xew ruus la mooy yéen yéen da ngeen may da ngeen may jaay ba rek bu may ruus na rek après kuy mm-hmm. waaw mais lii di jibi njaay moom ak du VIP bi. Mm-hmm. non ñaar ñooñu moom luñ dóor moom yeneen yeneen deux copains yi moom ñooñu moom xaw ma seen tur mais su ma jàkkaarloo ñoom naa leen xam. waaw naa si la bokk. léegi buñ la kay yebuñu ma bu may ñëw laa la wax nii. sama dox su ma doxee trois pois damay daanu. ah ñoom bu ñu la doolee géej ba indi dañ dox. dama doon dox léegi man dox bi mënatuma si dara parce que sama cër yi ñoo damm su ma doxee deux pas trois pas damay daanu. laa sang. foofu noonu non foofu man maa ne damaa bëgg sangu parce que ah ku ñu ku ñu jël kii nii doomu taal xëpp ko sa kanam gi yëpp ak sa yére yi kooku da sangu. Ah, ba pare yow il faut nga sangu parce que sama yére ñoom dañ koo xotti. sama tuuma bi tamit nu mu mel dafa garaaw doona xeeb si kiiw géej gi mm. il faut ma sangu quoi non man maa dox si laa ñëwee interview noonu ngeen gis moom mm. boobu ñoo xaadim la tudd ci ay waxam nee na naajo ak ay nitam ñoo ko def loolu ñoom ñoo ko wax bañ ko yóbboo après ci gi dañoo yóbbu xaadim après ñëw ci ginnaawam dugg biir néegam di seet li ñuy li ñuy wax ni moom lañ leen sàcc fekk fa papaam papaam lii la wax ñu ne ko kaay dañ laa soxla gis nga bi ñu ko ne kaay dañ laa soxla xaadim génn ne lan mu dañ laa soxla mu ne ah, kon xaar ba xaar ba ñëw mu daal jóg sol dalam ubbi bon xadim del si del si waatul ni la demee foofu waa ji torsu la indaa dafa ñëw ne bamba xadim ne daal lan la lu xew mu ne ko dañ laa soxla ko dañ laa soxla kaay dañ laa soxla léegi bi mu jógee ba kii ma ne ko ah bo comme da nga comme da nga génn solal sa solal sa daal nga dem ñëw xam naa dañ dañ laa war a soxla xam nga man ama ci ñaan njor mm-hmm. léegi nag bi mu génne dañuy ñëw fi moo tax amuñu dellu si waatul léegi bi mu génnee hmm. dellu si waatul boobu lañ ko yóbbu waaw mais xam nga woon nañ la téléphone ñëw fii ci néeg bi di parle bi ñu dellu si waatee hmm. ne am benn affaire bu ñu bu ñu xaadim ci def hmm. ma ne affaire bu mel nan mu ne loolu xamuloo ko boobu nag yóbbu nañ ko dóor ko léegi nag ne leen dem leen seet ba xam ndax di ngeen ko gis léegi xaaral rek xaadim moo ma woo ma uyu mu ne baaba nañu seet tu lu nekk ci néeg bi nañu seet li ñu wax bu fekkee mi ngi foofu nga xam ne man la nii la xaatim wax du portable baa jël. Mm-hmm. nga génn xajal leen néeg bi wala xajaloo leen néeg bi. ma génn ma jóg. Mm-hmm. gis nga kii sànq bi. Mm-hmm. man maa ko aj fale jël ser bi darab bi. teg ko nii ci sees bi. daal jël sama ser bii. boole ko kii bi lépp ma teg ko fale ñu jël mat la bi. non ñii kay. man ne non lu ngeen mën leen maa wax lu leer mu ñu ne ma am na am na ki wax ne. comme comme nii nii la demee kon kon kon kay gisu ko. Hmm. ñu ne kon kay gisu ko. kon kay gisu ko ñu ne kon kenn ki ne kon kay gisu ko parce que seet nañ kenn ku ne ah non garaawul kon léegi nañ dem ma ne kon kon bu ngeen demee boog ngeen ne ku mu ñëw tëddi nii laa ca toll. paa bi xamul na sax ñu ngi koy ñu ngi man xamu woon dara. xamul dara paa bi bu xamoon loolu booy bi du génn fii. Mm-hmm. waaw Ndiaye bi loolu lépp amee ñu déglu paa bi ak ak doom ji gis nga vidéo yi Ndiaye ni ni def booy bi mm-hmm. jokkoo nañu ak euh, abaa mi sax muñ jox numéro euh, Ibra Naajo mm-hmm. woo nañ Ibra Naajo boobu ba léegi ñu ngi koy woo téléphone bi day sonné rek du jël waaye il paraît que def na benn démenti mm-hmm. di weddi tuuma yi nga xam ne moom lañ ko teg dëgg laam du dëgg lii la wax dama gis benn vidéo léegi ñu bind ci Ibra Naajo moo jël kooku boole ko ay nit ñu dóor ko loolu amul parce que kooku man maa ko gisal sama bopp fekk ko ci koñ bi muy toog foofu mu fekk ma fa ne ma dama bëgg a wattu ma jàpp ko jël taxi yóbbu ko ba Grand yof mu wattu ma fayal ko ñu ñëwaat toog ba ci guddi gi ma tëdd di nelaw mu dugg ci néeg bi fekk sama airport foofu jël ko sama rakk bi Jibi Njaay gis ko di ko dàq ju yuuxu ko Sadio ba mu gaañ ko ci loxo jàmm bi ba mu gaañ ko ci loxo gars yi génn nag di ko dóor man xaw ma ñu ko doon dóor te yawul ma kenn mu dóor ko ma génn fekk ñu koy dóor ma jël ko dugal ko sama biir kër parce que man maa moom airport yi ma dugal ko sama biir kër sang ko ba set jox ko tubay jox ko caleçon jox ko yére jox ko mu ndékki tëdd sama néeg nelaw ba doyal ma ne ko baax na mu ne waaw ma ne ko waa kon baax na man maa moom airport bi may naa la ko dóoru ma ko te ñi may àndal tamit kenn dóoru ko ci nañ bàyyi ñuy def nii parce que ku nekk ak may woo waaw dóor nañ ko wala dóoruñu ko vidéo yaa ngi noonu Aba ci sa portable euh, Ndiaye vidéo yaa ngi noonu xam naa ni vidéo yi di ngeen ko gis ci réseaux sociaux yi c'est à vous de juger ah en tout cas ki ñu wane moom dañ koo dóor moom ba xam ndax Ibro la wala du Ibro loolu la ñuy lijjanti mais dóor yi metti na ma mais na staffam xool lii jëm ko lijjanti parce que artiste la boo xam ni tamit carrière am mu ngi soog a commencé nañu xool lii ba mu leer nañ nañ nañ parce que yii moom dañ hmm. ko xool ba leer man daal famille xale bu góor bi xa kin dóor lay wax suñ ko suñ suñ jugul ci moom day dinañ fe ñëw hmm? fekk ko mu dee ca affaire yi garaaw na de man de ñaar laa ciy wax hmm. benn mooy mooy moytu di tere suñu doom yi fréquentation hmm. parce que moo indi lii lépp bu ñu mënee ñëw sa kër ay trois heures xaw ma ban heure jël sa doom génnee ko parce que affaire de copain xaritoog sama gaañ la am na nañu ko tere xaadim bu tëddoon seen kër. Mhm. lii du ko fa fekk. ci kër ga lañ ko fekk. beneen ñaar mooy kii nga xamante ne jii ñu ngi koy tudd ci yii muy artiste buy soog a commencé bëgg a def carrière. Mhm. lii dafa ñaaw. très important. Hmm. te moom du gulet. Mhm. Hmm? waaw. bari na fi ñoo xam ne xam na yoo xam ne amul sens nga koy jàllale ci rajo yi parce que hmm. dañuy yaakaar da nga bëgg a yàq carrière nit mais pas mal de personnes ñëw nañ fi yoo xamante ne ji ca soirée lañ demoon ci agression la mujj

du mm-hmm. ma Ibra Naajo. Mm-hmm. waa gendarmerie ñambee ngi ñëw. non non affaire bi affaire bi affaire bi il paraît mi ngi police parcelle mi ngi fii. moom kay li ma la rek. Mm. gendarmerie Naajo moom gendarmerie ñambee ci man dara. bàyyi ah, rek ah, ah. voilà. en tout cas mi ngi noonu. affaire yi xam naa ni vidéo yi dina. circuler tey non non nañu rafetal seen seen mm. seen si yii amul sens. surtout artiste moom yii moom waruñu ko sax di laal ci artiste quoi. et puis nañu suñu doom yi ay fréquentation. àndandoo. c'est soo dee artiste sax ah. dafa am ñoo nan nga mën a jëlee sa doom deux trois heures du matin ba six heures ñu yóbbu ko géej di ko duma te yow baay bi xamoo ci lu mu nekk mm-hmm. na suñu doom yi di tëdd heure di yeewu heure di jàngi heure liggéey heure mm. xool ña muy àndal fréquentation am na solo de man booy bi ma doon booy bi ma doon seen yooyu de booy bu kul la woon bu dee lii moom Ibro mi man ne dama koo xamul sax faf booy bu kul laa gisoon booy bu yaru mais bu dee lii moom na ci def attention bu baax man moom dama ko man moom très attention ci lii man moom xamuma ay ci balaa émission bu mag bi di ñëw ah. euh, émission bu ndaw bi mooy soog a jeex ni euh, entre euh, allo présidence ak émission bu mag bi dina